jëf donc di di am mbégte euh, yaakaar naa euh, bés bi 8 euh, mars bés bu am solo la te président de la république ci boppam moo ni donc responsable yi yëpp moo xam maire la moo xam responsable politique nañu dem seen gox pour que ñu feete ko foofu donc loolu moo tax ñu donc jël décision donc def ko fii donc Fandène ci chef lieu de la commune de Fandène daaw effectivement dañ ko defoon au niveau départemental département de Thiès donc ci chef lieu bi Kees ñu defoon ko mu neexoon lool mu rafetoon lool mais yaakaar naa ku ci nekk dem ci goxam comme yàlla def na ci diggante bi ñun ay commune lañu de plein exercice donc il était tout à fait normal que ñun ñu ñëw def ko fi mais nag euh, euh, loolu nag mbégte bu rëy lañ ci am parce que dama ni jigéen yi euh, yaakaar naa bu ma fi toogee tey liggéey nañ ci lu am solo. yaakaar naa waxoon nañu ko fi donc c' était tout à fait normal aussi que ñu defal leen formation pour ñu xam président de la république li mu bëgg a liggéey ci Sénégal fekk fii ak deux mille trente cinq yaakaar naa loolu am solo la laaj na ñoom ñu xam ko parce que nit ñi dañoo xamul rek mais am na ñoo xam ne jànguñu école mais loolu leen wax ñu dégg ko ñu jàpp ko yaakaar naa loolu am na solo donc euh, loolu moo tax. en tout cas ñu président de la république am idée bi ñun aussi ñu profiter ci pour que ñoom ñu xam luy plan Sénégal émergent président fu mu bëgg a bëggale seen jëmale Sénégal mais aussi ñu profiter ci wax leen ni que euh, réforme constitution bi président defalu ko boppam def ko defal askan yaakaar naa képp ku dégg li ñu wax moo xam ci français la moo xam ci arab moo xam ci euh, olof lépp luñ ci luñ ci tënk dafa jëm ci askan wala de jëm ci institution te yaakaar naa lu dem assemblée nationale wala conseil constitutionnel yaakaar naa loolu ci njaboot gi lay lay lay dellu si donc président de la république defalu ko boppam nit ñi la ko defale ñun ñii la ko defal donc conférencier bi tout à donc dina ci dina ci ñëw expliquer jigéen ñi pour ñu xam bu ñuy voté ñu xam lu tax ñuy voté te yàgg naa leen wax ni yéen ku fi voté na nga xam ni voté sa bopp kese. jigéen bi fi toog mi ngi voté doomam bi nga xam ni am na deux ans am na trois ans parce que moom mooy dund dans euh, euh, fekk fi ak euh, deux mille trente cinq ñoom ñoo fi nekk donc ñoom la ñuy voté donc il faut ñu sóoraale leen ci vote bi donc pour que ñu voté il faut ñu xam lan la ñuy voté il faut que ñu xam ni responsabilité la pour ngay voté te am na yaakaar ni donc le vingt soreetul comme ni ma leen ko waxoon bu njëkk rek yaakaar naa Sénégal moom dina gagné fii Fandène parce que c'est Sénégal qui gagne ce n'est pas Fandène c'est le donc maa ngi leen di gërëm di leen sant. donc je ah. man maa ngi tudd Catherine Diop man may coordinatrice su jigéen yi comme ni ngeen ko xamee tey 8 mars bi fii lañ ko defee ci suñu commune bi comme 8 euh, mars bi bu njëkk ay doxu ñaxtu lañ doon def di def ay mobilisation bu mbay waaye ren ñun dañoo jël benn conférence pour. ñu mën a am euh, leer-leer ci fukki poñ ak juróom yi nga xam ne moom moo waral réforme bi ak ñu leeral ñu aussi plan Sénégal émergent ak li ko lëkkale ak jigéen parce que ñun ay jigéenu waa kaw gi lañu bëgg nañu xam naka la ñu war a def ba ñu mën a euh, participer ci plan Sénégal émergent ak lan lañ ci war a mën a séentu yooyu yëpp bëgg nañ ko xam moo tax ñu choisir ren conférence ñu woo suñu naataangoo bi mu defal ñu ko comme ça bu ñu ñibbee aussi ñu mën a wax ak suñu waa dëkk yi ak yeneen suñuy morom yi nga xam ne ñëwuñu fi expliquer leen ba ba mu leer comme ça ñu mën a woote wii ñoom ñëpp parce que dañoo bëgg wii bi mu nekk à 100 pour cent ci commune Fandène